benn bànqaas ci rajo Sénégal leen di nuyu di leen ziyaare bu baax di leen mu yàgg fi loolu te wér di ko ñaanal mboolem kilifa diine yi ak kilifa aada yi di ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa mu dolli ñu jàmm ci suñu réewum Sénégal mi di nuyu baax ak ziyaare njabootuk maam Thierno Mbacke eh, borom daaru ci sang bu tedd boobu nga xam ne. bàyyi ko na fi démb wuy ji boromam muy sëriñ Abbas Mbacke moom maam Thierno ñu ñaan yàlla suñ borom subhaanahu wa xaare ko àjjana te yàlla tas ñu ci barkeem di ko ziyaare bu baax a baax mboola njabootug maam Thierno gi rawatina ñi nga xam ne ñoo fi nekk ci doom yi. di ko ziyaare bu baax sëriñ Bachir Mbacke Abdoul Khoudous mi nga xam ne moo yoroon kàddoom mu jàllale ziyaar bi ci mboolam njaboot gi yëpp di ñaan yàlla suñu borom defal ko tawfiix di am ak bànneex rek di ànd ak tey ci suñu jataay bi nga xamante ne bii moom la ñuy def di ci fa yéene waxtaanee fi nga xam ne moom mooy tolluwaayu réew mi ngir rek euh, nit ci li nga xam ne dañ ko bokk dañ ko war di waxtaanee te mooy Sénégal gii ñu nga xam ne fii ñun ñëpp fi la ñu fekk baax. ñu am nag di kontaan ak contentement di invité suñu xarit euh, monsieur le commissaire sëñ Khadim Ndiaye mu fekk ko moom itam suñu xarit. Euh, Serigne Bassirou gay moom duñ ko présenté ti fii ndax euh, jaar na fi ay yoon yoon yoo xam ne def na émission yoo xam ne ba léegi mu ngi ci des ci xelu nit ñi euh, ñu bëgg waxtaan nag te ay tomb yu bari yoo xam ne incha allah ci kanam tuuti rek dinañ ñëw faram fàcce ko xam naa dañuy bàyyi ki nga xam ne mooy Serigne Bassirou Gaye bu ko defee mu nuyu bu nuyoo ba noppi rek présenté ñu suñu gan gu tedd gi nga xam ne mooy monsieur le commissaire Khadim Ndiaye ñu yëngu ci wàllu commerce ci liggéey li di ci liggéey liggéey bu am solo kon sëñ Bassirou Gueye dañ lay bàyyi kàddu nga ndog nga nuyoo ak mbokki auditeurs yi RTS bi. Mountakha Mbacké. fi loolu te euh, di ko ziar. ki nga xam ni lépp la woon ci moom muy Serigne Abbas Mbacké bu daaru muxti di ñaan yàlla suñu borom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te sëriñ bi taxawu ko ci njaboot gi mu fi bàyyi ci barkeem tuuba Euh, comme ni nga ko waxee maa ngi nuyu aussi ak ziar mbooleem auditeur auditrice yu RTS Touba Mbacké di leen souhaiter nos vœux les ñaan atum jàmm atum 2021 ñu dugg ci ak jàmm jeexal ko ak jàmm euh, comme li nga wax di leen présenter suñu xarit suñu wëllëre Serigne Khadim Ndiaye di commissaire aux enquêtes économiques nekkoon chef du service départemental du commerce bu Pikine yàlla dogal ginnaaw promotion yi nga xam ne def na ko fa ak liggéey bu am solo ndax bi pandémie bi di ubbi au Sénégal jàpp naa ni ñi tàmbali woon di trafiquer gel yi ca Pikine doonoon ay nit ñoo xam ne c'est des mal c'était des mal intentionnés moom ginnaaw bu mu ñëwee Touba fii def liggéey bu am solo ànd ko ak ñun taxawu daara yi gaaru ceer yi sous préfecture ak population yi ak quartier yu bëree bëri ci Touba te ñu àndoon ko ak moom dans la grande coalition élargie bu Benno Bokk Yaakaar ca la fi jóge dellu Pikine vingt quatre heures après ca la jàpp ñàkk yi doon def liggéey bu ñaaw boobu euh, ba président de la république am na lu mu ca jotoon wax di ko félicité bu baax ndax it dañu jugoon pour xeex jàngoro te am na loo xam ne bu fekkente ni yow mi koy defar yaa ngi rassurer askan wi pour wan leen ni li ma leen di jox baax na te fekk na la nga leen di jox baaxul loolu mënoon na gën a yaatal jàngoro ji moom nag bi mu delloo mu xar ci tànk tubéyam ànd ak ay équipe ba ñu jàpp ñooñu ba jébbaloon leen yoon kon nag ku mel noonu li sëriñ Abdou Lahat daan wax wala Abdou Diouf ku def lu rëy am lu rëy ginnaaw ba mu defee lu rëy loolu ca la yàlla dogal ñu jëlee ko fa léegi yóbbu ko mu nekk service régional du commerce bu Dakar comme adjoint chef de service ba di kilifa tey ji nag euh, comme yàlla dafa dogal mu ñëwoon fi kilifa gi wax lu am solo démb mu war a ñëw techniquement concrètement ci discipline akub yar ak engagement au côté des populations pour ngeen àndandoo faram fàccee li nga xam ne tey moo nekkoon discours bi ak perspective yi nga xam ne am nañ ko kon donc kooku mooy sëñ Xaadim commissaire kon ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay sant di la encourager également aussi ci lancé bi nga nekk nga bañ ci jug ndax loola luy jàppale askan bi la luy jàppale département de Mbacké la bonne continuation et bon courage et nos meilleurs vœux également aussi. jërëjëf sëñ Bassirou gay présentation bi am na solo lool ni nga présenté sëñ Khadim Ndiaye ñu leen di fàttali rek ne yéen a ngi ànd ak euh, RTS bu Touba Moustapha Touré moo ñu nekkal ci xarla gi ci kàddu gi Ibrahima Ñing ci émission bii di fàttali askan wi. Euh, su ko defee kon Serigne Khadim Ndiaye dañ lay bàyyi rek nga présenté wu nuyu ak mbokk auditeurs yi RTS bu Touba ñu doog a tàmbali nag waxtaan wi kon bismillah auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam lu nuyu yow sëñ Ibrahima yow mi ñu dalal tey ak sama wëllëre sama xarit di sama doomu ndey ji toog di bas nga xam ne damay wax ne moom moo jàpp ci samay tànk ba tey jii ma dugg ci politique bu baax donc ñu ngi nuyu ñëpp ñu ñuy déglu à travers donc la RTS euh, Mbacké euh, di góor ak jigéen bala ñuy tàmbali nag waxtaan wi yaakaar dafa am xew-xew bu tiis boo xam ne moo ñu daal démb muy wàccu liggéey Serigne Abbas Mbacké di xalifa maam Thierno moom nag euh, dafa sori ci ñun ndax sunu sëriñ la woon sunu maam la woon ndaxte wax dëgg yàlla mu weesu woon nañ sax mbiru sëriñ ndax euh, nit boo demee ba nga xam ne yow yaa ko tuddal sa bopp kooku sori nga ci moom lool kon démb am nañu naqar te it am nañu naqar waaye nag ñu ngi koy bàyyi sëriñ Serigne Touba di ko bàyyi bàyyam bu baax bi nga xam ne bi sëñ bii dem moom la bàyyi lool njaboot gi donc ñu ngi profité ci occasion bi di jàll njabootam gi. njabootu maam Thierno gépp sëñ sëñ Bass Mbacke di porte parole bi ak euh, euh, sëñ mu Mountakha nga xam ne démb moo ko taxawu lépp lu ci war mu def ko yàgg na ko fonk ndax euh, sëñ bi ci wàllu ay fan xëy na jege woon na sax téeméer waaye loolu yëpp da ko dund la goo xam ne ni dugaloon na ko ci li fi bàyyi bàyyi woon te li fi bàyyi bàyyi woon weesul leen lu dul rek li nga xam ne moom la sëñ Tuubaa yoon bi nga xam ne moom la leen fàkkaloon ñu jaar ci dundum gépp ci loolu la ko def jaamu yàlla ak liggéey ba tey ji mu wàcc wuy ji wuy ji ji ba wuy ji boromam ci ñu denc ko ci betu baayam donc ñu ngi gën a jaalaat euh, di feddaliwaat suñu njaal ci yoon murit gépp euh, ci daaru muxti rawatina nag sëñ Muntaxa mi nga xam ne ni wëllëreem la woon léppam la woon donc bi loolu wéy ñu ngi ci profité également di jaale euh, ñëpp ñi nga xam ne nii ñàkk nañ seen bakkan ci ci deux mille vingt et bi mu ñu ñu xam ak ñu ñu xamut euh, ñi ci gën a xam nag ñi nga xam ne ñëpp xam nañ leen ci ci diine ji ak tamit ci wàllu politique bi ren dañuy wax ne ab euh, c'est mm, diir la boo xam ne xawoon naa tàng lool yu bëri bàyyi woon bàyyi ko nañ fi donc ñu ngi leen ñaanal yàlla ñoom ndax boo limee da ngay yàlla suñu borom xaare leen àjjana donc di profito tamit ci ci li ngeen ma may ci ci kàddu gi di di ñaanal ñëpp at mi ñu jëm mu doon atum naataange at moo xam ne atum xéewal la at moo xam ne bala ñu ko dugg balaa yàgg rek mbas mi nga xam ne moo lëmbi àdduna bi am jërë ngeen jëf ñu tàmbali ko ci loolu euh, jërëjëf euh, monsieur le commissaire sëñ Khadim Ndiaye ñu ngi lay sant bu baax a baax euh, vraiment di la dalal jàmm fii ci RTS euh, bu Touba di rafetlu itam bu baax a baax sa teewaay fii nga ànd ak sa xarit Serigne Bassirou Gueye mu accompagner la ci émission bi nga xam ne émission bu am solo la ñu fa yéene ko waxtaanee li nga xam ne moom la ñu bokk te mënuñu ko séddoo muy biir réew mi euh, Serigne Khadim suñu premier question ak yow mooy démb monsieur le président Macky Sall génn na jàkkaarloo ak askanu Sénégal. ci télévision nationale bu Sénégal muy RTS mu ànd ak ay journalistes yu bari mu def benn discours bu am solo boo xamante ne bii wax na ko jëmale ko ci biir réew mi waaye jëmale ko ci mbooleem population bi su lu ñeneen ci am yu baree bari yoo xamante ne tam wax na ko am yoo xam ne junj na ko ci ak leeral ñu bëggoon a xam nag euh, sëñ Xaadim euh, ban jàngat nga am ci discours bi nga xamante ne bii président def na ko mu nekk discours à la nation. jërëjëf sëñ bi ñu ngi comme ni nga ko waxee démb président la république comme ni nga ko baaxoo di defee dañuy fàttali ne saa yu ab at di di jeex ñuy song beneen ba baaxoo na ci tradition républicaine président jàkkaarloog peuple sénégalais waxtaan ak ñoom liñ jot a def ci at mi weesu ak li nga xam ne moom lañ naal ci ci biir di ñëw ak yi nga xam ne moo ci topp Euh, ñu ñu gis nag depuis daaw am na changement boo xam daf ci am ndax d'habitude président daan def discours rek bàyyi waaye ñaari at yi daaw ak ren gis nañu ne ci stratégie de communication def na discours ba pare defaat beneen interview comme ni nga ko waxee bu mag boo xam ne en wolof lañ ko def dinañ ci ñëwaat. pour gën a leeral sénégalais li nga xam ne ni mooy ce qu'on appelle toutes les questions de l'heure maanaam li nga xam ne mooy interpeller sénégalais yépp donc kon su ñu ñëwee ci discours bi ci jëmmi boppam lañ cee njëkk jàng mooy discours la boo xam ne dañ koy jëme ci wàllu économie ak social ndax am réew li koy tabax mooy économie ak social discours bépp soo ko xoolee du début jusqu'à la fin ci ñaari fànn yooyu rek la ndax wax na ci wàllu électrification rural boo euh, jëlee ci fànn googu président ngi wax ne lu mat cent mille lampadaires solaires yoo xam ne nar nañ ko def ci ay dëkk yu fasanti ko ndax Sénégal kat néewu na taax rek ñoo fi nekk fu doomu aadama nekk fu Sénégal nekk war naa mën a am courant mën a am <laughs> kon su l' ensemble commune communes du Sénégal mu am loo xam ne nii waajal na ko fa muy cent mille lampadaires fekk si li nga xam ne moo fi nekkoon doon lu am solo mu waxaat tamit ne central électrique boo xam ne à gaz boo xam ne bu trois cent mégawatts la centrale boo xam ne war nañ ko fee def loolu tamit mën nañ ko jàngee ci discours bi suñu continuer tuuti ci fànn fànn googu noonu su le plan sanitaire président taxaw na fa lu am lu yàgg ndax ren dafa tombanteeg at mu metti mooy at moo xam ne li ñuy wax pandémie la covid 19 moo moo dal àdduna bi dalaale Sénégal mu doon loo xam ne lu metti la ndax xaw tun mu nërmeel suñu économie ñu am ci ay coono yu bëri population yi jànkonteeg tamit ay coono yu bari ñu gérer ko nañ ko war a gérer ndax première vague bi bi mu amee état du Sénégal daf cee taxaw ci nam ci war a taxawee ndax am nañ personnel bu qualifié am nañ structure sanitaire contrairement ak nit ñi nañ koy waxee yoo xam ne nii tey bu doon baaxutoon duñ jël Sénégal en exemple ne ci gestion pandémie bi ñoo jël deuxième ci ci monde bi mu taxaw ci sur le plan sanitaire li ko war yëpp mu def ko ci boole ko ak benn plan de relance économique sociale secteur yi benn bàyyiwu ko ci kenn ku nekk fa nga nekk rek fekk nañ fa jàppale la di transporteur bi di di par rapport à l'artiste donc di di di di touriste bi ñi nga xam ne ñoom ñoo jëm ci wàllu tourisme secteur yi bàyyiwut fenn fu ci nekk rek jugal na fa ay milliards ba ci la ci gën a doy waar sax mooy génne 69 milliards yoo xam ne da ko jëndee dund jox ko askan bi njariñ loolu nag ni mu amee woon solo moo di ne Sénégal ba ñu dugg ci wàllu mbas mi bi ñu demee diir ndax nit bala ngay laax jaay dangay ngay laax lekk ragaloon nañ ne produit yu bëri danañ manqué ndax fañ koy jëlee ñoom mënoon nañoo tëj seeni frontière te bu produit manqué rek prix yokk waaye cam vaste campagne de distribution boobu président defoon tax na ménage yi kër yi kenn ku ci nekk la nga soxla woon denc nga ko soo ko dencee doo ko soxla soxlawaat kon kon produit yi am na ci ci biir mar ci ci ci kër yi le marché était bien approvisionné prix yi yéegut donc contrairement ak la ni ñi yaakaaroon ne euh, programme boobu tonnage bi ni mu bëree woon quantité bi dana déstructurer le marché demewut noonu au contraire dafa tax marché bi stabilisé wu prix stabilisé wu ba benn exemple rek laa ci joxe nga nga dem ci yeneen secteur yëpp ñu boole ko def benn plan de relance boo xam ne nii tax na tey Sénégal mënut am récession donc gestion bi c'est un c'est une gestion phénoménale originale ci kaw dañoo boole la gestion sanitaire muy dem ñu boole ko ak des des mesures d'urgence yoo xam ne nii waaye tamit de mesures à caractère économique et social donc ci discours bi ñëwaat na ci loolu yëpp. ci liñ ci def ci xaalis ci li nga xam ne nii moom lañ jàppale secteur par secteur ndax boo ko toppoon tey daanaka doo fi jógee waaye daal wax na ba pare nag wax fi ñu jëm parce que tamit Covid bi wan nañu ne war nañoo gën a yokkaat sunu sunu sunu kii sanitaire sunu sunu structure sanitaire yi war nañ leen gën a jëmmalaat ñu gën a am doole sur le plan national ba tax na mi ngi wax ne donc war nañoo def lu mu bon bon bon bon bon quatre hôpitaux yoo xam ne dañ nivo trois benn Kédougou benn Kaffrine benn Sédhiou benn Touba ak ay centre de réanimation yu am doole yoo xam ne war nañ ko fe def ak six centres dialyse mu fekk si lu fi newoon muy vingt cinq au Sénégal mu war a recruter tamit lu ma cinq cent médecins ak mille paramédicaux kon nga gis ne sur le plan sanitaire tamit discours bi ñëw na ci largement ndax ñëw na ci Covid bi ni ñu ko gérer ñëw na aussi ci perspective bi fi ñu jëm. muy lu leer naññi boo jógee donc ci fànn wér-gu-yaram nga ñëw ci fànn gi nga xam ne lu am solo la ndax kenn du ko lekk waaye dafa am solo ndax dem bi ak dikk bi su amul ci réew yaa ngi koy wax léegi marchandise du mën a dem nit ñi duñ mën a génn pour mën a lijjanti seen problème donc lëkkaloo dëkk yi dëkk yi sur le plan international et au plan interne nu mu gën a gaawee gën a baax sunu sunu sunu koom-koom di gën a dox ba tax na ci transport yëpp ñëw na ci ci yoon yi muy route tali ñëw na ci transport ci train maanaam transport ferroviaire ci gaar yi ñëw na ci port ñëw na ci aéroport bàyyul fenn ndax soo soo jëlee tey jii ci wàllu secteur boobu noonu nee na neuf projets routiers yoo xam ne weesu defar nañ ko mu mu couvrir lu mat quatre cent vingt cinq kilomètres loo xam ne boo demee Ndakaaru ak ci Sénégal ku ne mën na ca teg sa bët wala mu caa dana tungu du teew ñun nataal lu leer moom kenn mënu koo ja gis jaaxa ndax mu continuer ci ne deux cent vingt et un kilomètres d'autoroute boo xam Sénégal mi ngi ko am bëgg cee dolliwaat leneen ndax discours bi li ci am solo mooy te naan lii la liggéey fii lañ toll lii lañ ci bëgg a dolli fii la ñu toll te it teg ci seen bët fii lañ jëm nit nag bu la joxee bu la diggee reer jox la ndékki jox la añ su la diggee reer da koy nangu te ku nekk teg na ci sa bët donc ñu continuer ci loolu mu ne kon deux mille vingt et un danañ yeggale benn autoroute à péage Mbour Fatick Kaolack muy war a couvrir cent kilomètres mu ne tamit Thiès Tivaouane Saint-Louis sur cent soixante sept kilomètres war nañ ko defar war a continuer waat travaux BRT yi bi tamit ñu war ko continuer ba jam ñaajo kon tamit sur le plan du transport terrestre les preuves tangibles que ne réew mi mi ngi dox génne na ko démb wax na ko ñëpp dégg na ko su le plan du transport ferroviaire maanaam gaar euh, ci wàllu raay yi nga xam ne Sénégal da ko da cee amoon ay gàllankoor yu wér train express régional bi nee na dana tàmbalee liggéey euh, maanaam mettre en service en deux mille le chemin de fer aussi ndakaar Tamba danañ ko réhabilité mu doon lu am solo ci sunu commerce diggante ñun ak Mali ndax dafay décongestionner port Ndakaaru mu doon lu am solo ci wàllu commerce ndax la marché euh, d'intérêt national bi bis bu taxawee dangay gis ne mm, réhabilitation bi lu ci am solo lay doon mu ñëwaat ci wàllu transport maritime benn port moo amoon Sénégal port bu ñëpp xam muy port Ndakaaru mu newoon fi ak ay nattangoom muy port Abidjan ak yeneen port yi nga xam ne dañoo compétitif woon mu bëgg a ñëw naka jekk mu amoon doole ñu dem ba port bi tàmbalee ay gàllankoor ndax décongestion na dafa dem ba xat ba bëri ay problème yoo bu ñu defutoon nànk rek port Côte d'Ivoire danañu ëpp doole dana nangu marché bi donc non seulement port bi ñu ngi ciy liggéeyaat lu am solo pour tegaat ko ci ci ci pour mu gën a compétitif waaye loolu la koy gën a yombal mooy nag nañ def beneen port boo xam ne nii mooy li muy tuddee port Ndayane boo xam ne benn infrastructure lay doon ci Sénégal ak ci pays sous région benn lay doon ndax sur mille deux cent hectares la ko nar a def sur un coût global de huit cent quarante million de dollars mm-hmm. kon. nga gis ne c'est un boo xam ne bu am solo lool la mu ñëw fekk si li fi nekkoon kon loolu tamit lu leer la lu ñëpp teg seen bët mooy port boo xam ne bis bu ñëwee ñëpp danañ ci gis seen bët kon da ngay gis ne sur le plan terrestre sur le plan ferroviaire si wàllu yoon ak sur le plan maritime wax na fi ñu jógee liñ def ak fi ñu jëm mu mu des sur le plan aérien foofu aussi. la ci ëpp solo mooy ay aéroport yoo xam ne ñu ngi koy def ci région yi Saint-Louis Ouro gi Matam kafrin en attendant bu Ziguinchor bi Tamba ak Kédougou di pare kon nga xam ne foofu aussi li ko ci war yëpp mi ngi ci boo jëlee nag ci discours bi en tant que tel leeral na lu bëri ginnaaw bi mu waxee li nga xam ne moom la moom lañu liggéey ci senegal te tax na surtout sur le plan Euh, de la croissance économique pandémie bi mu ñëwee suñ croissance bi nañ ko yaakaare woon da ko naroon nërmeel waaye suñ borom dimbali nañu ba nawet bu baax lañu am ba production bi ñu am ren ci gerte gi ak ci lépp tax na tey la nit ñu doon yaakaar jàpp ne Sénégal day dem ci récession économique ci nërmeelu suñ borom danañ jàppale ba tën a jóg ndax ci wàllu gerte gi macha allah. ci wàllu yeneen production yi aussi ndax am am réew bay moo am mbay moo ko yore ak ay industrie yu transformé di ko jaay kon loolu leer nañ mu dikkaat aussi. foofu bala ngaa jàll monsieur le commissaire ci wàllu gerte gi. Mm-hmm. gis nañ fan yi rek ay coow yu bari xaw na ci am. Mm-hmm. ci prix bi ci état bi nga prix bi nga xam ne état bi joxe na ko. Mm-hmm. ak ñi nga xam ne eh, dañ koy jégga dañ koy jéggaane ci bitim réew ñoom itam ñu gis prix yi ni mu xaw wutee ba amoon ay jafe-jafe ba eh, am na jamono sax oto yi dañ leen a mujj bloqué ci yenn ci raison yi lu waraloon loolu ak itam ndax loolu saafara wala déet. jërëjëf yaa ngi posé question bu am solo mooy le problème de la commercialisation de l'arachide au Sénégal ñu bari dañ ciy wax te maîtriser wuñ ko. surtout ci vingt ans yi mucc dafa am ay acteurs yoo xam ne ñoo yàgg a nekk ci gerte di ci dox ci commercialisation muy producteur bi nit ki bay mooy industrie bi nga xam ne moo ko soxla mooy tamit opérateur bi nga xam ne mooy lëkkalee producteur bi ak industriel bi ak depuis deux depuis quelques années mu am kenn ku ci duggaat mooy un exportateur muy secteur boo xam ne dafa yàgg yàqu ndax ku ne fàttali ne 2005 2006 ay bon impayé moo amoon baykat bi nga xam ne moo daan bay di jóg fajar di dem di ruuj di sonn su jaayee du ci mën a gis boppam du ci mën a sax dundee ñaari weer mu mm. doonoon lu metti lool lu ñëpp teg seen bët nga xam ne suñ jaayaan ay bon impaye lañ leen doon jox kara usine ku ne gis na li li mu yàqee ci réew mi mm. te pourtant dañoo war a def loo xam ne ay prix la yoo xam ne ay prix au producteur pour baykat bi ndax Sénégal kat képp kuy liggéey danga nga ci bëgg sa bopp. lan moo tax commerçant bi moom muy liggéey bëgg cee gis boppam ouvrier bi bëgg cee gis boppam salarié bëgg cee gis boppam ñone nag baykat bi moom li muy liggéey waru cee gis boppam na bay ba mu jeex daal mu jël kilogramme bi di ko jaay ci prix bu bon ñaar fukk ak i faneer loolu jaaduwul kon première mesure bi état njëkk jël mooy day yéegal prix au producteur pour permettre nga xam ne dañu ne mun nga jaay lu koy ëpp waaye munoo jaay lu koy yées loolu soo ko déggee mooy dañu protéger producteur bi ndax soo jaayee lu yées du ko arrangé kon dañu ne nag ginnaaw nous sommes dans un marché concurrentiel l' essentiel mooy que soit le le le fait que nous sommes dans un marché mais tamit bu kenn wàcc prix bi daaw mu nekkoon deux cent dix ren euh, état yóbbu ko ba deux cent cinquante foofu tam dafa jar leeral. deux cent cinquante néew ni moom rek la ñu war a jaayee mën nañoo jaay lu ko ëpp waaye dañ ne buñ jaayee lu ko yées. bu loolu amee nag ren concurrence am. concurrence bi aussi li ko indi mooy dañoo toog ay at yu bëri yoo xam ne at yee weesu. production bi dafa bëri woon. industrie locale bi liñ ci soxla woon mu jël ko li ci des des ci loxol baykat yi ñu ñu dem ci ci ñoom di ko jënd njënd mu bon. njënd mu bon lool ba mbir mi production bi xamuñu ni ñu koy def tamit mu bëri lool président dem Chine négocier ay marché sur le plan international ba am ay accord avec la Chine ñu ba ñu dem sur la plan qualité yàlla dimbali nañu ba ñoom nangu nañ ne suñu gerte gerte gu baax la bañ koy jël di ko exporter am réew nag importation kese mënu koo yor am réew pour mu développer balance de paiement de comme foog mu ngay exporter si surtout loo xam ne nii ndax production ci wàllu gerte dafa aléatoire tey day yéeg soo mu wàcc kon foog nga def ci lu ñuy wax régulation sëñ bi économie boo gis dañ koy réguler produit maraîcher yi pom pomme de terre beeg soble bi dañ koy réguler am na période boo xam ne dañuy bàyyi ñu fi nekk jaay. Mm-hmm. liñ bàyyee ci réew mi rek ñooy jaay mooy dox. am na période boo xam ne bu ñu demee ba ñoom ñu jaay ba pare ñuy ubbi frontière yi noonu lañ ko defee ci suukar si noonu lañ ko defee ci diwlin gi ci ndax diwlin gi tey ji am na benn quota bala ngay importer am na quota boo xam ne war na koo jënd sur le marché international de 10 pour cent. Mm-hmm. sur le marché national kon ni ñuy réguler yeneen secteurs yi lañ koy réguler kon benn. foog ñu fexe ba béykat bi gis boppam muy benn ñaareel ba ñu fexe ba industrie bi aussi mën a am lu mu produire mais aussi capital semencier bi ñu war ko développer ak tamit suñ partenaire internationaux ñu bañ leen a bàyyi ndax ëllëg su méttee dañ leen di soxla loolu la ñuy tuddee régulation état loolu lay def su ngeen ko xoolee période bi ñu toll nii nee nañu tëj nañ exportation pour permettre huiliers yi ñu mën a jënd ak ñu mën a constituer capital semencier suñu demee ba loolu jàll dañuy ubbiwaat ndax mënut a ñàkk ndax su suñu suñ ko ubbiwaatut ba ñee suñu amee lañu war a am ba pare prix bi su wàccaatee du arrangé béykat bi concurrence la kon nag mbir aussi buy dox acteurs yi ci nekk aussi dañuy dañuy fexe góorgóorlu ba ba méngoog jamono tey gis na ay gis na ay entreprise yu bari comme ni ko président bu waxee démb ñoom tamit nañ góor góorlu entreprise locale pour ñoo fekk ci baykat bi seet ñi ci des ni ñuy def pour ñu mën a am li ñu bëgg ñu ngi joxe un exemple am na ci ci ñoom ñoo xam ne nii pour ñu mën a am seen production biñ seen seen seen quantité euh, gerte bi ñu bëgg dañuy dem signer contrat ak ay baykat ñu bàyyil leen ay tool ñu signé ñoom contrat nga xam ne lu marché bi metti métti métti signé nañoo ñoom ay prix signé nañoo ñoom ay prix yoo xam ne doon ay prix yu bon ba xam ne dañ leen jaay seen gerte loolu aussi ñu ngi ciy ñaan yoor aussi muy gën a jublu ci loolu maanaam daal sa se conformer à à à l'évolution du marché marché bi kenn munatu koo tëj nañ ko tëjee woon kenn mënu tamit na gerte ga doon doon demee ci njaay ma njënd mi ak njaay ma ñuy continuer ci noonu am réew dafay dox kon ñoom it ñu ngi leen di ñaan ñu ngi ci ñu ngi ñu ngi nuyu au passage directeur général Modou Diagne Fada liggéey bu am solo mi ngi ciy def ndax gis nañ ko boobu ba tey toogut lépp lu man mi ngi koy def pour mën a gën a mën a fexe secteur bi mu gën mu gën a jaar yoon kon nag ñu xam ne gouvernement bi mun ta bàyyi béykat bi mënut a bàyyi huilier bi waaye tamit day sóoraale exportation bi donc régulation boobu la ñuy def na ko ñëpp xamee noonu xam ne béykat bi daal moo nekk au centre ay jamono man Tamba def naa fa juróom-ñaari at def naa Sédhiou ñaari at am na ay at yoo xam ne nii yenn producteurs yi dañoo dem ba ci biir ba ci béykat yi di jënd ci ñoom le kilogramme à cent franc boobu sonnoon nañ amuñu pexe tey nag ñoom ñooy roi adduna noonu la kon nañ ko nag te état dafa war a protéger ñëpp wërta bàyyi rek ku am doole dem nërmeel koo xam ne amul doole équilibre moo war a te équilibre dans un marché concurrentiel moo mën a génne ku ne mën ci gis sa bopp loolu mooy campagne de commercialisation gerte gi ba tey gis nañ itam gerte gi gis nañ ne macha allah xaw na takku waaye gis nañ prix diwlin bi moom euh, jamono yi dafa mel ni dafa xaw a yéeg daal ba jaaxal ne xaw na euh, am ñu bari ñu xaw a jaaxal lan moo waral loolu ndax importé bi dafa amatul wala lan mooy waral loolu loolu moom tension la rek fan yi boo xam ne seetlu nañ ko xam nga marché ginnaaw diwlin moom du ci ëpp dañ koy jéggaani mooy président mi ko wax démb. Hmm. ndax industrie war nañoo mën a tàmbalee di liggéey lii gerte diw gerte gi nga xam ne moo gën ci nit ñi. Hmm. parce que boobu Sénégal ñu bari dañoo xamul loolu mais diw yi ñuy jéggaani bitim réew yu ci bëri diw gi ñuy defaree Sénégal moo ko gën. ba tax na fan yi gis nañ ci marché mu am tension tension lañ ko mën a def ndax nekkut pénurie hmm. loolu nag bon sur le plan international dollar bi moo xaw a yéeg tuuti. ministère du commerce ñu ci def liggéey boo xam ne balaa yàgg rek danañ gis ne dana normal donc loolu moom loo xam ne lu lu gàtt la durée bu gàtt la loo xam ne balaa yàgg danañ danañ ko régler waaye ñu dellusiwaat rek te tamit ci discours président bi comme ni nga ko xamee ndax tamit wax na ci wàllu vaccination ci Covid bi wax na ci wàllu immigration clandestine wax na ci wàllu tamit ñàng ak ñàngale mi ak loolu nga xam ne ñu bëri yaakaar nañu Sénégal da koy bàyyi mu mu jàll Sénégal c' est un pays de rumeur réseaux sociaux yi ñoo yàq Sénégal ñi nga xam ne nii c' est des opposants à mal de popularité ñu ci ëpp ci ñoom ñooy wër di nekk ci réseaux sociaux yi di yàq xel doomu aadama yi président il a été constant sur toute la ligne ci fànn yu demee noonu nee na ñun sunu sunu sunu réalité sociale duñ ko duñ ko négocier Sénégal dafa am nu baaxoo. wax na ko ci homosexualité wax na ko bërki démb bi mu demee France tamit nee na leen am ngeen seen réalité ñun tamit am nañ suñu réalité su ngeen bëggee ñu ànd da ngeen ñu jox li ngeen li ngeen li ngeen am ñu jël ci li nga xam ne moo ñu arrangé yéen tamit ngeen li li ñu yore ñu jox leen ko ngeen jël li ngeen ci arrangé moo di ne ne ku nekk comprendre sa morom. Mm-hmm. c'est le rendez-vous et du recevoir li ma faral di wax la culture elle est universelle. Mm-hmm. mais égale elle est relative kenn ku ci nekk yaa xam na nga tojee sa bopp jën aaday réew du aaday réew la xew Europe mënut a xew France mënut a xew Sénégal waxoon na ko devant des chefs d'État en waxaan na ko bërki démb bi coow coow beneen coow jugaate waxaat na ko aussi démb ne il n'est pas question xeetu ñàngalin moom mu ñëw Sénégal nee na bu fekkoon dañ ko doon jéem a indi fit nañ ko delloo fa mu jóge woon te duñ ko nit nag boo fekkee da nga yor njiit mu xas ba wax la mu wax loolu ngay ci ay wolof yu leer nañ ñi la ko wax su moo nag su ma dee sénégalais di citoyen président bi nga xam ne moo dogal nee na lii du fi am du ma nangooti nag ab opposant ñëw ci sama kanam gis nga président li nara nar te def te mi nga wut ak la mu wax da ngay am fulla am fayda kon loolu mu doon lu leer nañ mu ñëw ci immigration clandestine bi sëñ Ibrahima immigration clandestine suñu waxantee dëgg rek bëri naa samay mbokk yu nekk Mbuur yoo xam ne nii faatu nañ. ñu ngi ñu ngi ci profité aussi di jaal Sénégal gépp ndax li ñu deele dafa bari mu doon lu metti waaye genn wàllu gu ci bëri ñàkk xëy taxul yow ñu dem dañoo dem ndax jàpp nañ ne suñu demee danañ am lu gën fii. am na ci ñoo xam ne seen i lañ jël jaay am na ñoo xam ne seen oto lañ jaay ña nga doon joxe dépense loolu président mënu ci dara. donc dañ delloo si xel yi ginnaaw sax dem na ba jeex parce que président jël nañ ci ay mesures yoo xam koy continuer ñi nga xam ne ñoo ci nekk bëgg cee dund te teguñ ko ci dëgg yoon dana dal seen kaw ci gën ngaa metti ñu xam ne yoon tamit ñëpp la fi nekkal. duñ bàyyi sun sun ndaw yi war a construire suñu dëkk bi ñu bàyyi leen ñu dem di sacrifier wu ci géej gi ci loo xam ne ay mirage kese la di leen gëm loo loo xam ne nekkut le chômage yi ni mu amee Sénégal noonu la amee en Europe noonu la ñu sonnee. nit nag bala nga dara boo boo ko muñut du la fekk foog nga toog muñ tàmbali ci ci dara tàmbali ko benn weer ñaari weer te doxul nga ne bàyyi naa ko fi naa dem wala nga am dara xeeb li nga xam ne moom nga yore ne naa ko fi bàyyi dem loolu tamit ndax tamit président def na fi ay projet ak i programme yu bëri pour les jeunes soo gisee projet yooyu programme yu bëri dañoo bëgg jeune bu ci nekk ñu mën la jàppale néewul ne rek emploi salarié mais auto emploi suñu organiser jigéen ñi organiser jeunes yi organiser xale yi kenn ku ci nekk da nga mën a am am ah, ci looy jàpp loo xam ne da nga mën a suturlawu da nga ko def nànk te a yàkkamti mhm. ndaw du yàkkamti waaye xale yu ci bëri dañoo yàkkamti bëgg xëy rek ci benn fan lépp doxandoo te bu doo doxoon nga bëgg a xas nguur ga yàlla xëyut bu doon loolu la yàlla su ko neexoon mu xëy àdduna te créé ko ci benn fan du créé doomu aadama ci benn fan tukkal ko ci ci benn fan defu ko ndax port bi ñuy wax kii sur le plan ferroviaire yi yi ñuy fii tudd yëpp ay rab kii yeeg ñu tudd les hôpitaux dafay créer emploi discours la boo xam ne wa wane na ci fermeté bu mat sëkk ci yenn question yi nga xam ne nii sénégalais ñu ngi koy posé en état ouvert aussi au forces politique wane ne moom il est ouvert loolu sax du ci discours bi mais ci face à face bi la da ngay jël yëpp rek boole ko wane ne moom il la là pour tous les Séné pour tous les sénégalais ku bëgg a ànd ak moom liggéey dana ànd ak yow liggéey si dellusiwaat nag fi mu mujjee ci ville coow li bëri na mais ville foog ñu nangu benn mbir comme ni mu ko waxee lu ñu defoon la rek pour des raison peut-être politiques je ne sais pas uh-huh. mais correspondre doon ak li nga xam ne moo waroon a am uh-huh. ndax Sénégal boo xoolee ci la politique de décentralisation depuis 1972 ba nëgë ni lépp dañ ko ci ci ay phase la uh-huh. ba mu dem ba ci phase bi mujj nag bi nga xam ne moom dafa def communalisation universelle mooy dëkk yëpp dañoo nekk commune pour mën a commune bu ci nekk am doole mu joxal jox leen ay doole yu mën sëkk ba nga xam ne danañ ci wàllu suuf bi tamit doole ji ji ji ña jot amuñ ko woon ñëpp teg nañ ci seen bët. kon nag suñu demee tey jii ba nga ne dañu ne population bi pour nga mën leen a gérer na nga leen gën a jege ñu gis ne dëkk bu mel ni Dakar dans toute la région de Dakar ak Thiès li li xewoon Sénégal xewu fa ndax Sénégal commune la ñuy wax. foofu rek mooy ñaari région yi nga xam ne foofu la ñu doon wax ville te ville yoo xam ne am na ay communes d'arrondissement yoo xam ne liggéey yëpp ñoo ko am parce que la ville n'a pas de compétence propre compétence yëpp commune dara communes yi ñoo ko yore loolu nag ginnaaw loolu dafa am balaa ca yi nga continuer maanaam nga def benn réforme nga continuer réforme bi li xew Sénégal ci treize waaw quatorze régions ci douze régions yëpp mm-hmm. Dakar na mel noonu Thiès na mel noonu maanaam ñu def euh, ay conseil départementaux yoo xam dañu leen dañu leen dooleel dindi ville def ay communes commune yi maanaam moom seen bopp mën mën a gën a gën a am ay ressources yu ñu gën a mën a liggéeyee <laughs> kii bi population bi loolu donc nekkul raison politique encore une fois de plus wax na ko il l'a démontré avec aisance d'ailleurs depuis 2012 ba deux vingt 2021 bi ñu nekk benn yoon lañ mas a perte ay élections muy 2014 kon loolu ragal amu fa. il il s'agit tout simplement de se conformer à une logique de la d'une de la politique de décentralisation logique la loolu kese la loolu donc ci gàttal c'est un discours complet c'est un discours donc qui prend en compte toutes les questions d'actualité te duggul ci waxu ñàkk fayda yi nga xam ne moom la opposition bi di di di faral di nga xam ne moom la ñuy rey sénégalais yi il a été ferme concis clair te la muy wax leer na nañ te beneen mbir am na jëm ba mu paree wax ak askan wi ci ci kàllaamay Kocc Barma sëñ Abdoulaye dane woon nit de moom dana mi ngi nii moom moo jar a wax ki nga xam ne jàkkaarlawut ak yow ku ku dul gis mais ki nga xam ne jàkkaarloo na ak yow mu ngi ni jërëtul wax maanaam tungu ne du teew ñu nataal li ci nekk mooy wax naag population bi ci ay wolof yu leer nañ ci question d'actualité yëpp ngallaawaay na population bi yeewu ñi nga xam ne dañ fee nekk bëgg leen a nax bu teyee ñu ne président moo ne bu ëllëgee ñu ne président nekkul nañuy méngale ëllëg la ñeen di wax ak la ñuy gis ak li président wax. mu doon leer nañ kon donc c'est une stratégie de communication ki a porté population bi xam nañ li xew kenn mootu leen a nax xam nañu président mi ngi pour liggéeyal Sénégal c'est du concret. lu ñëpp teg seen bët la kon ñi nga xam ne jàpp nañ ne ci plateau télévision rajo yi la ñuy gagné élection dañuy nax seen bopp yàlla baax na sax ba démb moom bi président waxee pare ñoom kenn amul loo wax ñi nekk ci palaato yëpp kenn mënut a wax ndax xamuñ lu ñuy wax ndax lu leer la lu ñëpp teg seen bët la kon nag ñu ngi ñu ngi ñu ngi gën a féliciter président la république donc di xam ne wax dëgg yàlla am na njiit ndax lépp lu ñuy seet ci qualité ci njiit mi ngi ci moom te ñu xam ne am réew kenn du ko yor ci pression maanaam kenn kenn du maanaam la nga bëgg doo ko wutee ci pression président wane na démb ne lu ñu bëgg nañ ko jaaree fañ ko war a jaar waaye nag buñ ko def ci pression yoo xam ne exemple yu bëri. jërëjëf sëñ Khadim Ndiaye kàddu gi leer na am na solo macha allah wax dëgg yàlla jàngat bi nga xam ne def nga ko ci discours bi nga xam ne président def na ko. muy discours à la nation euh, li nga ci indi ci ay faram-fàcc ak i leeral gën naa dugg ci bopp sénégalais yu bare bare bare bare yi ndax euh, lépp leer na waaye gën nga ci indi itam ay leeral bu baax a baax xam na sëñ Bas euh, dañ lay jox kàddu gi rek bu ko defee waaw wàllu Covid bi. Mhm. ndax réseaux sociaux yi ni ma ko waxee léegi li ñu yàq dafa bëri. ba ci ñu ngi ñëw ci wàllu vaccin bi lañ ci ñëw tuuti. Mhm. président wax na ko. Mhm. nee na dañuy dem dañuy vacciner incha allah peuple sénégalais ndax mbirkat bu ñëw amul solution ñu ne scientifiquement su le plan médical lii mooy solution bi. Mm. fa lañ jëm tey jot a ragal moom wax na ko ñun képp ku fi toog fii vacciné nga bay bëgg a dee bu doon vaccin de rey nit nag ñëpp dee nañu Sénégal. Mm-hmm. programme élargi de vaccination ku ci nekk gis na ko. Mm-hmm. produit boo gis nag mu doon un produit médical pharmaceutique soo ko jëlee dana am effet indésirable. garab ga ngay jël soo yoree ulcère mën na laa gaañ nga donc mën nañ laa vacciner sa fii neew yi nga ñëw ne vaccin bi la am na lu muy indi nangam xamoon nañ ko nañu yeewu lii amul garab lu dul ñu vacciner wu wér te amul benn président buy sacrifier sa réew ah en tout cas du fii Sénégal de te le président et son gouvernement son prudents ndax nee nañu dañuy bàyyi ba deux mois yi jàll bañ leer nañu du ñu nekk cobaye kenn ñu étudier ko sur le plan scientifique ci ay xarala sëñ Muntaxa nag dafay wax ne mbir bu taxawee ñaara ci taxaw ñi nga xam ne seen xam-xam ci loolu la màcc suñu borom moo leen jox boobu xam-xam ñu bàyyi leen nag lañu xam ñu doxal ko ñu topp seen ginnaaw ñun li nga xam ne moo ñu war ci diine ji mooy ñaan ak ñaax doomu aadama yi ñu def ko loolu mooy continuer ba tey donc ñu xam ne nit kat soo ko wóoloo yaakaar ko ko ci wàllu a àdduna gënu ko gën a bëgg boppam te nee na ci médecins yi la ñuy tàmbalee ak ci ñi nga xam ne nii eh, dañu mooy mag ñi médecins yi nga xam ne nag ñoo koy liggéey ñoom ñoo ñuy faj yaakaar naa bu dee luy gaañ la du ñu nangu ñoom ñoom ñu ñoom ñuy gaañu xel nanguwu ko kon nag na Sénégalais rassuré wu su fi ñëwee ñu def ci campagne de communication bis bu duggee Sénégal ne leen leer na lañ ci waroon saytu saytu nañ ko ñu mën cee vacciner ba feeg deux balaa yàgg tawat du ma sax dellu fa mu nekkoon waaye mu jóge ci ci ci ci Sénégal gi ndax suñu économie mën a dox kenn ku ne mën a gis sa bopp ci say activité président lii la ñu bëggal lii la ñu kilifa diine yëpp bëggal. kon na ko ñëpp xamee noonu nañu yeewu te bañ nañu bañ ñu ñuy nax naxkat naxekat yi politiciens yi ñu ngi fi. nañ xam fu ñu teg suñu tànk bu baax a baax. Euh, sëñ bas xam naa rek euh, bëgg nañ dégg nga li sëñ Xaadim résumé ci discours bi nga xam ne président def na ko euh, fi ñu bëggoon na nga gën cee xóotal say wax mooy wàllu immigration clandestine bi dégg nañ dem président wax na ko nee na am na ci loo xam ne ci parents yi la ndax ñooy jàpp seen doom di leen xas doo tekki doo nangam ak nangam yu mel noonu an lan ñu mën a gën a baax rek ci gën a sensibilisation ci lu mel noonu ci parents yi gën a téye seen doom comme sëñ Xaadim wax na ko moom itam daanaka ñiy dem def immigration duñu ay ndóol ndax ku ku mën a dajale trois cent mille boo ci kon nen yaakaar naa mën ngaa dajale leneen waaye koo xam ne bi yow dépense de la te yaakaar naa mënoo def mënoo def immigration kon sëñ Bassirou Gueye kàddu gaa ngi noonu jërëjëf sëriñ Ibrahima xanaa di euh, félicité bu baax commissaire Khadim Ndiaye ci exposé bu am solo bi nga xam ne def na ko ginnaaw bu mu parcourir démb le discours du président de la République alors il a parlé avec engagement c'est parce qu'un homme engagé, quand il parle, il parle avec engagement. Il a parlé avec rigueur, c'est parce que c'est un président très rigoureux. Il a parlé également aussi avec assurance, c'est parce que c'est un président qui connaît très bien là où il aller et là où il amener le Sénégal pour que ñu mën a àgg à bon port comme on a l'habitude de le dire parce que nag réew ay caaxaan yoru ko am réew po yoru ko am réew ay discours yoo xamante ni c'est des discours insensés yoru ko li ko yor mooy rigueur engagement et que ki koy def di ko def ci ay valeur parce que valeurs yi rek ñoo am solo te bu ngeen déggee ni président waxee démb Xadim waxaat ko léegi nii ñun war nañu mën ay orientation ci ban genre président lañ am ñun ndax fi may ñëwee tuuti mooy ci problème mu homosexualité bi nga xam ni nit ñi tàmbali woon nañ koy wax. il a bien dit ah que ni nañu moytu les réseau sociaux nañu moytu des ñi nga xam ni c'est des gens vertu de mensonge gëmuñu lu dut li ñu bëgg nit nag bu fekkee da nga gëm lu dut li nga bëgg toujours yaa ngi seet ka nga xam ni def lu baax ak jëf lu baax moo ko tax a jug lu mu wàqi nga suul ko pour uniquement atteindre sa objectif mais ki dem marché. toggal la ceebu jën def ci lépp ceeb bi ñor neex ngay tàmbalee lekk est-ce que di nga ko weccoog ki nga xam ne danaan la man de bu ma ñëwee ba dem marché ba nduggal la ba toggal la ba yàkkal la <laughs> mais mënul nekk te kii nañu nangu ni li ma daan wax waxtu wu nekk ak ki suñ borom di tànn pour mu jiite ndax nguur yàlla mooy dagg ci lim moom ci jamono bu ko neexee waxtu wu ko neexee mu def ko ci jënn jëmm ci waxtu woowa fii ñu nekk nii on a un seul président si le président de la république Macky Sall mooy gouverner kon li ma bëgg mooy ñu xam ni waxtu yi bu accès keneen ku ko war a remplacer ci jamono booba suñ borom tànn na ko te noppi na mais bu ko tànnee ba pare noppi te kooku jamono bi muy wut bëgg mu ngi doon wax lu rey sénégalais yi mais bu demee ba yor réew mi fekk ñëpp faatu kan lay gouverner. la mu doon wut ban njariñ la koy amal amatul sens kon nañ delloo si xel yi te xam ni réew mi ñoo ko bokk a ah, li nga wax nag ci émigration clandestine bi commissaire Khadim wax na ko léegi muy bu fekkee yow mii dem da nga am boutique boo xam ni lu mu gàtt gàtt deux millions nga fa nga mën di gagner chaque jour vingt cinq mille trente mille bénéfice gane ko fi ñukk ni damay dem yow mii dem yaa ngi yoroon sab jakarta di am sa journée cinq mille le mois cent cinquante mille nga ne ko fi ñukk ne da ngay dem yow miy dem yaa ngi nekkoon sa yaa ngi yoroon sa atelier menuiserie wala nga yor sa atelier soudeur wala nga yor sa affaire lu ne di ko def xëy benn jour parce que lan la nit ñaa ngi dem mais wërsëg bis bi ngay juddu bis bi ngay faatu ak sa wërsëg suñ borom da ko mooñaale ci benn bis kon nañu bañ di anticiper wërsëg amut solo. dem wuti te la ngay wuti boo ci jotee doo ko jariñu lu mu lay jariñ amatul sens la nga wuti nga am ko ba pare faatu bàyyi fekk bàyyi ko fekk ay caaxaankat yoo xam ne luñ ñaaw wala lu bon luñ ci def moo lay fekk sa bàmmeel amatul sens alal boo ko amee lu mu bari bëri kër yoo ci jënd lu mu bëri bëri ci genn kër rek ngay fanaan ci benn néeg ngay fanaan ci benn lal ngay tëdd te boo tëradiwul genn wet ngay tëdd ba bët set kon alal ji ñuy dàq di ko wuti te buñ ko amee duñ ko bokk ak ñiñ ko war a bokkal ban sens la am amatul sens mais li indi loolu yépp nag ci parents yi la ay jamono nit mag da daan gone da daan tukki ba ñëw mag ña bu yegsee lan lañ koy njëkk a wax baa sonnoo ñoom coono ba gone koy sonn lañ koy ñeewanteel kon kooku du la bëggal dara mais léegi bu ñu dégg tukkee boo nee tukki nga ba ñëw li ñuy njëkk a xalaat mooy nañu xëy daje fa toggi añ ku nekk yaa ngi ubbi say bët pare say loxo daas ko pour foog ni dañuy yëkkati àdduna ak lu ci biir jox la mais gone googu bu amul teraanga bu mu indi sax bu tukkee mën naa bañ a ñëw te loolu bàyyiwuñ ko xel rawatina nag sa doom ne ci koñ bi sa doomu nawle ne ci koñ bi mais bu sa doomu nawle tekkee wala sa doomu wujj yow sa doom tekkiwul xoolal na nga doon sëyee ak baayam parce que sëy yi da ci am solo sëy yi da cee am solo parce que doomu jëlëg doomu diggu lal ak doomu catul lal lu ci nekk dafa am nu ko mag ñi daan tekkee mais léegi da ngay ñëw wara sëy correctement duñ la sax léegi boo demee muñal parce que la mag ñi daan muñ lañ leen daan wax muñ leen da ngay dox ay kilomètres mel ni soxna jaara di wutim ndox saa boo rootee ba ñëw ci teen bala nga àgg ca daara ji doo ngay dogale la naan ko nga delluwaat man mm-hmm. ngay dox quarant heures di pour indi ndox ci kër gi te doo ko ndax saa boo accès ñu dogale la nga joxe ko te ña nga koy jox say doo ngay sëriñ lañ da nga daan dox ay kilomètres pour dem wuti loo bojj léegi machine yay def lépp da daan dem bay tool ci ginnaaw kër mu ñor nga cay jël di indi ci biir kër gi di ko togg di dimbali sa boroom kër loolu amatul mm-hmm. léegi la ñuy sëye whatsapp bi mais whatsapp nan la lay maye doom ju baax nan la lay maye doom joo xam ne tey jii danga nga naan kii kat dama koy sagoo dama ni xaar leen ko mu ñëw joo gis wala bu ñëwut kenn du démarrer nañu laaj ko ko liggéey lam fa daj kër goo gis nag ñu tabax ko karale ko néeg yi am ay climatiseur dem leen laaj jeeg jafa jeeg jeeg jëm jur borom kër googu ba muy nekk ak juru borom kër ga lan lañ doon dund daan xambe ndéef daan naan sexew te duñ ko booleeg mburu duñ ko booleeg beñe daan siim cere di ci def ndox ak xorom di ko lekk xamuñu woon luxe waaye léegi sooy ñëw fekk nga borom kër gi tabax këram fekk nga sambaree am climatiseur fekk nga fi oto bu lay yóbbu marché fekk nga fi dépense bu doy mais kon muñatoo da ngaa ñëw rek pour dëkk si ak lekk loolu nag su amee jàpp naa ni noo def nga sonn mais nag xale yi bu ñu leen sensibiliser ci degré de sensibilisation bi nga xam ni moom moo war a dugg ci seen bopp te mu war a commencer ci biir kër yi papa ji ak yaay yi kenn bañ a daw say responsabilité ci sag doom mënoo jur doom di ko dundal mënoon koo pattal mënoon koo làggal defoo ko mais nga di ko entretenir di ko toppatoo dugal ko école jàngal ko mu xam li mu war a xam mais dama jàpp ni kooku su màggee war naa mën a tege ci yoon mm. ñaata métier ñoo am Sénégal ñaata xeetu métier ñoo am Sénégal kon ku taamu dugg ci géej gi dem yow la neex mais boo jàngiwul métier am loo yore say waajur tubaab yaa dàq some fii tey boo demee bitim réew lan moo indi la moo kalochaar ci mbedd yi la ñuy tëdd di taxawaalu tey ji dem na ba ñoom la fa nit ña daan wuti ñoom ñoo la ko gën a bëgg fop rayante yi ngay dégg rey nañ diw rey nañ diw lu ko indi parce que la bëgg dañuy jàpp ni ñoom ñëw leen koy xañ bëgg a liggéey te gisuñu ko yow nga ñëw di liggéey mais dañ naan ñoo leen koy xañ kon loolu gone yi lay ñaan ñu convoqué waat seen i responsabilité ci seen kanami waajur parce que war nañoo mën a góor góorlu ba yor seeni waajur noppal leen mais waajur yit convoqué waat seen i responsabilité ci seen kanami doom xam ni doom nawle la te yàlla mooy joxe ku mu may nga am ku mu xañ nga ñàkk te yàlla du may day dénkaane saa bu la dénkee waxtu ko neex la koy rocc Covid bi ñaata milliardaire la fi yóbbu te pourtant bu fekkonte ni dañuy faju mënoon nañ dem bitim réew faju ji ñëw mais yóbbu na leen te xaaru ci dara yàlla la waxtu wi ñuy faatu ñaata milliardaire ñooy juddu te ñun xamaguñ leen yàlla la kon nañu delloowaat lépp ci loxol suñ borom te dégg ndigalul kilifa ndax bu buñ demee nag ba porte parole xalif général des mourides taxaw ni képp koo xamante ne dem nga nañ ko méngale xaru jàpp naa ne loolu rek ñun murit ñun jullit yi war nañoo mën a xam ne kenn ñaanut yàlla faatu dem safara te nag buñ ne aslamtu nafsi yaakaar suñu sëriñ boo foo loo ñu digal ñu def loo ñu tere ñu bàyyi tere nañ ñu nañu baax digal nañ ñu toog leen liggéey góor góorgóorlu jaamu yàlla nañ ca nekk te xam ni sëñ Tuubaa li mu liggéey gone yi fuñ mën di nekk ci senegal laay wax bu ñu toogee ci réew mi tubaab yi danañ dem ba fekk suñ dina ko jox ndax suñ tubaab liggéey na ko luñ ñu war a fay la ñoo ko moom bu ñu gëmee suñ bopp toog ànd ak ñi ne liggéey suñ senegal gi jàpp naa liñ bëgg danañ ko am jërë ngeen jëf. conclusion bi nga xam ne def nga ko muy lu gàtt loo xam ne résumé na lu baree baree bari itam muy soññe boo xam ne wax dëgg yàlla lu mat a gën a yaatal la ci ndaw ñi ndax euh, ki nga xam ne mu ngi ci butigam di yaxantu di ca mën a gañe dara. bëgg xëy xëy bàyyi ko ne daa bëgg xëy xëy am ay milliards wala ay million te wërsëg ni ki da ko judduwaale yàlla suñu borom moom moo koy dogal kon nañu gëm ne yàlla moom mooy maye yàlla moom mooy xëñee waaw surtout nag li nga wax ci soxna yi ci wàllu sëy bi nekk na message bu am solo ndax jigéen day sonn ci kër dañu wax ne sëy ñaari saam la saamu kaani ak ak saamu suukar boo ci jëfandikoo rek sa doom ngay bàyyi ba ca des kon nag soxna yi nañu góorgóorlu lu baax a baax. te bàyyi xale yi ñuy xas di leen di leen wax yenn kàddu yi amoo jom ak sa nangam sa doomi bàyyi nii euh, dooma ter ak dooma def nangam yooyu kenn du ko wax nit ndax bu yàggee nit ki mën naa dem ba sax bu ko amul sax mën naa dem ba dugg ci lu mu war dugg jëlee fi jàmbur dem te yooyu yëpp itam dara du ko jar ci àdduna kon nañu gën a lu baax a baax a baax kon ñu ngi leen di fàtte yéen ngi ñuy topp ci programme RTS national euh, fii ci diwaanu Touba ak Mbàkke ak ko wër ñu dalal tey suñu mbokk Serigne Khadim Ndiaye euh, bokk ci service de commerce euh, di taxaw taxawaay bu am solo waaye feggoo itam ak suñu xarit moom itam sëñ Bassirou gay moom itam bu AFP. Euh, kon sëñ Khadim dañ lay bàyyiwaat ak kàddu gi rek xam naa nga ñëwal ñu ci beneen point bi muy wàllu commerce bi fi mu toll nii ci biir réewum Sénégal mel na ni marchandise yu bari yokku na. te kenn xamul loolu lan mooy li ko waral ñu ci bare bari dem nañ ba wax ne sax fi ne dañoo bëgg a tëj seeni boutique ndax daanaka boo jëndee te la ngay jënd euh, di ko jaay da ngay mujj bëgg a perte loolu xaw na doy waar muy ci wàllu ceeb mi wàllu diwlin bi sax wax nga ko ak yeneen yi nga xam ne moo ci topp loolu ndax ban jàngat nga ci am ak ban gis-gis ak lan mooy sabab loolu. gannaaw bi ñu nekkee cadre ministère di commerce donc ñu ngi bokk aussi ci parti bi ñuy wax APR bokk ci responsable fii ci Touba Darou Marnaan aussi donc dañ koy fàttali ñëpp. xam ne e, loolu tamit luñ jara loo xam ne war nañ ko mën a fàttali bu baax daal ñoo xam ne donc ñi bokk nañ daal ci kàngam yi parti bi nga xam ne dañuy jàppale président fii ci Touba ak Mbacké donc bi loolu wéyee pour répondre ci sa question bi ah man de bu ma déggee ne Séné ñu ne Sénégal dañuy prix dañoo yéeg jaaxal na ma waaw ah, jaaxal na ma loolu ndax yaakaar naa ne depuis 2012 ba nëgë ni ñu ngi door a am ay gu gouvernement boo xam ne dañoo stable dañoo am stabilité ci prix yi depuis 2012 2013 ba léegi benn prix yéegul foo ko dégg maanaam mooy tension nag mënut a ñàkk nga toog benn benn benn ayu bis ñaari ayu bis benn produit yu xaw a manqué prix yéeg tuuti loolu la ñuy wax tension mais pénurie amu fi ci prix yëpp boobu ba ndëgg ni bokk na ci bilan Macky président Macky Sall li nga xam ne tax na deux mille 2020 bi ñëpp gën ko ki mooy prix stable mooy ceeb bi prix yañ ko fixé woon 2012 ba tey moo fi nekk diw gi yañ ko fixé woon moo fi nekk suukar bi lañ fixé woon moo ci nekk loolu nag bokkut ak commerçant bi nga xam ne day toog di jalgati yoon lu ñu loo xam ne ñu ngi ko war a jaayee par exemple six cent cinquante kilo suukar fii ci Diourbel xaw ma nag ñaatal waaye dama joxe exemple rek moom wëlbati ko jaay huit cent ñu jàpp ko wala mu ko jaay huit cent du moins su koy jaay loolu population suñ ko jëndee loolu dañuy yaakaar ne yokku na te yokkut kooku moo jalgati yoon te bu service du commerce yi dañ ko teg yoon kon damay bañ ñu ñuy jaawale entre commerçant bi jalgati gam jalgati yoon ak prix yi nga xam ne moom la état du Sénégal fixé prix yooyu ci mburu mi yooyu yokkul te moo ne boulanger yi am na ci ñenn ñi ci ñoom ñoo xam ñu ngi doon jug bi seen ne dañuy ñaan prix mburu bi mu yokk mais gis nañ liggéey bi ci ministère du commerce di def ñëpp teg ci seen ba tax na prix bi yokkul boo jëlee ci ceeb bi également comme ni nga ko waxee diwlin ji suukar bi ak pomme de terre bi soble bi li ci état di def ci wàllu régulation ak yenn ci subvention tax na prix yooyu yëpp dem président mi ngi koy wax ci wàllu ndox mi ndox moom tey bu ko état du Sénégal wu subventionné wutoon ak courant bi dana métti ci Sénégal yi trop kon nag nañu xam ne prix yi nga xam ne moom la nit ñi gën a bëgg mooy moom lañ gën a soxla mooy les prix des denrées de première nécessité bi nga xam ne lu kenn ku ci nekk soxla nga ko loolu état du Sénégal fexe na ba dugal ko ci mu nekk niveau yoo xam ne nit ñi mën nañ ko supporter muy benn waaye nag dañoo nekk ci benn environnement boo xam ne c'est une économie libéralisée bu njëkk ba ba ñuy wax contrôle économique dëgg-dëgg mooy prix pousse sax dañ ko daan fixé pris yëpp lañ daan fixé mais depuis 1994 ba nga ni c'est le système de libéralisation mooy am loolu mooy prix yu néew rek moom la gouvernement bi di fixé yi nga xam ne mënut a ñàkk yi ci des yëpp mooy commerçant bi mooy seet la mu jëndee mu teg ci bénéfice am bi ñëw xool entre qualité produit bi ak la mu koy jaayee ndax jaral na ko. su ko jaralee mu jënd su ko jëru mu mu dem seeti keneen loolu la ñuy wax c'est la loi de l'offre et de la demande dans un dans un kii marché concurrentiel loolu tamit boo xoolee ci ay million ngi millions ngi produits articles juróom benn rek lañ ci fixé seen i prix la ci na nag mais nayaa moyen bu état demee ba seddu ne ci benn secteur comme daloon nañu ci ciment wala mën nañoo dal ci yeneen produit mu gis ne kat secteur bi mi ngi tàmbalee am problème prix mi ngi yéeg-yéeg goo xam ne jéggi na dayoo état nag day toog wax industriel bi wala ku koy liggéey ne ko indil ma sa structure de prix ñu xool ndax lii ngay def nii prix yi ngay appliqué ndax normal na wala déet suñ ko suñ ko xoolee gis ne mën nañ ko wàññi dañ koy wàññi ci benn délai boo xam ne mënut a weesu 4 mois kon ñu ngi ci système de libéralisation dëgg la waaye tamit may yoon may na état du Sénégal chaque jour su gisee secteur boo xam ne dafa am dérèglement ci wàllu approvisionnement bi ak ci wàllu prix mu mën a intervenir ba situation mën stable kon ñu xam ne Sénégal fi mu toll nii hausse des prix am fi li fi am peut-être yenn commerçant yi nga xam ne mën nañoo jalgati yoon ñu teg leen ci yoon te ñu xam ne tamit système ñu ngi nekk ci économie libérale ou libéralisée mënuñoo nit ki jënd portable am ko ñaar fukki junni mun a fexe ba mu ji jaayee ko fukki fukki junni juróom. nit ki mooy xool li ko doy ci prix bi ak mu méngale ko ak qualité produit ba ba mu des boo secteur boo xam ne dem na ba jéggi dayoo def nañ ko ci ciment def nañ ko ci secteur yu bëri bu ñu demee ba gis ne lii état woo acteurs yi ñu bokk toog waxtaan ñu seet lañ ko mën a bu dee loo xam ne ay taxes la yoo xam ne état da koy wàññi état wàññi ko bu dee loo xam ne aussi structure bi des prix boobu méngawut ak li war ñu wax leen ñu wàññi ko pour nit ñi mën cee mën a dund kon bokk na ci bilan président Macky Sall mooy prix yi dañoo stable depuis 2012 loolu euh, ku ne mën na ko seetlu donc man gisuma produit yoo xam ne ci li nit ñi soxla maintenant ci wàllu dund gi comme ceeb bi ñuy wax les produits de luxe comme riz brisé parfumé nga xam ne c'est un produit de luxe ñëpp soxlawuñ ko nit nag bu soxlaa loo xam ne nii lu am qualité loolu la dee joxe njëg loolu moom yoonu état nekku ca waaye li nga xam ne ni daal ku xëy ceeb diwlin suukar pomme de terre soble da nga ko soxla lu mu néew néew état fixé na ko te képp ku jalgati yoon service du commerce dana dal sa kaw. boole koog nag liggéey boo xam ne dañ koy def ci wàllu qualité produit alimentaire yi. yëgul foofu xaw ma nag région de Diourbel parce que tamit dafa am région Dakar am région de Diourbel li am solo mooy tonne bi ñu ngi ci deux cent quarante mille donc tey. tonne bi man mënu ma wax li nga xam ne moom la commerçant yi di pratiquer ci marché bi li ma mën a wax mooy ñun officiellement prix yi ñu fixé yi ñu fixé dara yéegu ci bu ñu demee ba seetlu na sur le marché international am na mm, produit boo xam dafay am tension dañuy toog ñu gëstu ko xool loolu lu ko indi comme ni nga ko waxee ci diw gi donc ñu ngi gëstu xool lool li ko indi pour mën a xoolaat nu ñu mën a réguler marché bi ba mën a am ba prix yi mën a nekk nam ne ndax diwlin daan na fi wàcc ba bay jar treize mille yenn saa yi mu dem ba seize mille ba dix huit mille ça dépend mais à chaque fois bu amee rek ministère du commerce liggéey bi ko ci war tanu ko def kon man yëguma fu ceeb yokkoo la may lañ fixé woon te moom lañu appliqué Ndakaar du ko appliqué ci Sénégal gépp moom lañ xam. kàddu gi leer na loolu yi nga wax itam am na solo lool. président la boo xam ne nii ba da toogee ba nëgën si nii Touba gis na boppam bu baax a baax a baax a baax a baax ci hmm. ni muy doxalee réew mi ni muy yoree réew mi. Hmm. ndax soo jëlee ci secteur yëpp secteur santé secteur transport le secteur transport bu ñu ko waxee moom mooy autoroute à bi bi nga xam ne lu lu waay iñaan iñaan iñaan soxor wala ngay gëmm wala nga gëmm lu leer naññ lu kenn mënut na man ba ma daan jógee dakaar di ñëw daanaa def six heures de temps donc gagné naa en en terme de temps une heure de temps et demi ma yegg si sakkal na naa sama carburant dem naa ci benn daara kër kër masaar fi sama doom di jàngee ñoom ñu jógee fa am néew bu ñu doon indi Touba. ñoom ñoo ma njëkk a yegg man mi waroon dem Pikine loolu lu doy waar la lu yéeme la loo xam ne ku ne woon ma ki am soxla gàcce ngalaam autoroute à péage Ila Touba bi moo ma ci doy. ku bëgg sécurité aussi moom ma ci doy waxuma nag ki nga xam ne da koy jël jàpp ne rek ma di daw ay cent quatre-vingts kooku moom sécurité weesu na ko day day def lu ko neex. waaw waaw day def lu ko neex waaye macha allah. muy autoroute bi su le plan sanitaire gis ni liñ fi liggéey évacuation des eaux usées milliards yi ñu ci def ak des eaux pluviales ku ne technique jumaa ji ni mu doon taaye bu bu bu nawet bi jotaan jeex na lampadaire yi ñu def ci dëkk bi ku ne technique si bët ndax Touba dafa am dualité état day def communauté bi di def ñoo tam ñi ngi saluer wax dëgg yàlla waa Touba ci kanam ak bépp association boo xam ne nekk na fi di di liggéeyal Serigne tubaa mm. ndax ndax tubaa loolu aussi dafa doon lu yéeme lu jaaxal mooy di liggéey te kenn fayu la ngir jëmi Sëñ Bamba. moo fi am mm-hmm. kon loolu lu jara lu jara saluer la mm. donc kon état day def ñoom tamit ñu ñu def waaye benn rek la. Mm-hmm. noonu dafa jëm ci Serigne Touba jëm ci ay taalibeem donc président la république liggéey lu am solo ci tubaa ci fànn yëpp suñ ko doon lim du jeex ba tax na. ki fi toogal Serigne tubaa jataay bu mu toog dana ko sant dana ko gërëm la ca njëkk mooy bi ñu jàllee ci élection présidentielle rek ba mu wo wooyee maanaam famille Serigne Touba yëpp ne leen damaa bëgg ngeen seere ni kii sant naa ko gërëm naa ko te def naa ci moom loo xam ne foogoon naa ne coowul àdduna du tax mu ma di ko def ndaxte boole naa ko Serigne Touba. Mm-hmm. xam nga nag sëñ bi mbir tamit dañ koy wax ci dañuy wax dëgg. Mm-hmm. moo di ne. Mm-hmm. ki fi toogal Serigne Touba moom moo fi toogal Serigne Touba. lu mu xas boo wax nag lu keneen wax lu bokkut ak loolu wala nga jëf lu bokkut ak loolu man la nga jëf ak la nga wax dama koy teg damay wax li nga xam ne damay damay jëf wala ma wax li nga xam ne moom la wax mm-hmm. te moom nee na sant na président Macky la gërëm na ko barki démb waxaat na ko ci màggal gi nee na ko lépp lu ma bëgg mi ngi ci lépp lu ma bañ tamit nekku ca mi ngi may jàppale ci bu baax yàlla suñu borom dimbale na ma ba boole na na maa nguur goo xam ne ki ko jiite déggoo na ma ak moom. du moo ko wax. léegi des nag bu Massamba taxawee ne ak koo mën na doon nag laa wax koo mën a doon ci kër àddina nga taxaw ci kanam population wala nga taxaw ne président nii la mel nangam bëgg tuubaa dafa def nangam kon yow contredire président mais sëñ taxaa nga contredire. Mm-hmm. wax ji kenn du ko yërëm. ndax moo ne sant naa ko gërëm naa ko liggéey na tubaa liggéey na Touba fonk na Serigne Touba fonk na ma fonk na waa Touba moo ko wax de nañ tegaat band yaa ñëpp di ko dégg kon koo manti doon ci këru àddina soo tax bëgg ñoo gëm loon naan ñu maki fonk Touba wala parce que nommé wut kenn tubaa rek tax na fonk Touba wala nanga wala ay nit ñoo xam ne mënuñoo dajale fukki nit fu ñëwee ci rajo yeeg télé yi di mbal mbal yi di yuuxu naan buñ demeen élection ma gañe ma gañe te yow leer na la mënoo de vote na population bi loolu tax na tey ñu jóg ñun fas yéene wane li président liggéey te sëñ Mountakha di ko bisal ñu wan ko population yi fekk leen fañ nekk dimbale leen jàppale leen ba tax na su élection ñëwee ñu mën ko gañe te tey nag cin bu baxee bu naree neex su baxee day xeeñ xeeñ gi mooy élection yi weesu am nañ 67000 voix te 32000 la ñu amoon ca yële kon population baa ngi yeewu kon nag dañoo ba fas yéene ñu gën a yeewu gën a yeewu gi moo danañ dem ca ñoom wane réalisation président ci réew mi réalisation président ci Touba ak ni ko mu Mountakha jàppee ba keneen bu fa ñëwee bëgg a wax leneen du loolu ñu ne ko toppal nële bu élection yi ñu may président ndam te ñi ngi défier ñi fi nekk nga xam ne duñu tekki ñu dara ci wàllu politique danañ leen défier ci élection yi di ñëw danañ leen dóor bañ daw ba booba yàlla nañ suñu borom yóbbu ndax yàlla du du fay mukk wax bàyyi jëf ñun dañuy jëf tey sur le plan social ñu ngi jëf tey coalition bi léegi fi amul opposition ñun la ak waa réew mi ñëw nañu ak ak coalition bi benn bokk yaakaar bi fi mas nekk te ñu ñun benn lañu ñu suul bërki démb lañ signé benn pacte bu am solo di marque wane ne lépp lu président def ci ci Sénégal ak ci nomination yi mujj ànd nañ ci kon ñun benn lañu kenn mënuñu tëggale ñun nag bu ñu nekkee benn ñi des benn nit buy xëy di wax nga xam ne télé yeeg rajo yi lay dundee. su xëyee tuuti bu moom moo xam ne bu nekkul rajo télé du mën a dund duñ ko faale li président nekk daal la ñu nekk mooy ñu bàyyi munuñoo tere ñu ñu wax nañu wax waaye ñu bu jëf ji jotee nañ jëf. waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm ci ñi ngeen ñu mayee ñu mën a waxtaan ak tey askan wi ci jàngat gi nga xam ne moom la ñu waroon a def ci discours président bi waaye nag di ñax rek population bi. ndax dañoo nekk ci contexte boo xam ne ji euh, dafa metti mooy contexte pandémie bi nga xam ne dafa ñëwaat ñu koy wax deuxième vague. Euh, ñi ci faatu ñi ngi gën a bëri ndax réanimation cadre ñi nga xam ne ñoo nekk en réam bu ñu bëree rek day compliqué. te xam nañ ñi nga xam ne ñoom ñoo feebar ñi nga xam ne dañoo am ay ay feebar mel ni diabète ak tension yu mel noonu ak mag ñi la gën a yëpp. kon nag li ci sëñ Mountakha def war nañoo doy yëkkati 200 millions teg ci taabal ji. yëkkati ndimbal jox population bi jàppale eh, gouvernement bi ci lépp lu nga mooy campagne de sensibilisation takk max kon ñun waa Touba ñun ku du dara ñun sëñ bi wan nañu yoon ñu war a jaar mm-hmm. tawat jaa ngi fi te jugagu fi kon nañ gën a góor lañ ñu doon tere dem tey lañ ñu ko gën a tere nañ moytu rassemblement yi nañu génn di sol suñu masque di sol di di di di di def suñu gel te tey moytu dajaloo yi te wala wala buñ tey demit ñu mën a fàggandiku ak suñu masque yomb na ñaar fukk lay jar sëriñ bi def na li mu war a def boole na ñaan ak jëf état mi ngi def li mu war a def bu boole na di faj nit ñi tamit di jël ay mesures ñi ci des nag mooy ñun population bi ñoo war a dimbale suñu bopp. balaa vaccin bi ñëw nañ fexe ba kaay mën a wàññeeku rawatina ci tubaay gi ñu nekk te bàyyi nit ñuy wër di wax naan tawat ji amul. soo amee kilifa mu ne lii la lay njëkk a wan ne mooy génne naa deux cent millions teg naa ko tam lii maa ngi koy def bi teg ci sa bët soo soo taxawee ne tawat ji amul moom nga weddi. lu wér la donc nañ ci gën a bàyyiwaat xel xam ne mu ngi fi donc lañ doon def ñu gën ko tey nag di ñaan yàlla suñu borom muy atum nattange ñu gën a nekk benn gën a liggéey dellu ca tool ya comme li ab laa doon wax yaa yàlla wàllu nañu ren ci ndax nawet bi naat na waaye nag nañu jaay te bañ a yàq ndax àdduna kat ñaar rek a fi nekk neex ak naqari tey mën naa neex ëllëg mu naqari comme ni ko président waxee démb baykat yi ginnaaw ren am nañu lu ñu bayee loo xam ne maanaam gerte gu bëri nañ jël ñoom it leen ni denc ko pour semence mm. waaye toog di xaar tamit gouvernement defal lépp te loo xam ne mën nga koy daanaka doy na waar donc ñi ngi ñaan donc sénégalais yëpp ñu ñu mobiliser wu ci plan de relance bi nga xam ne moom la président teg kenn ku ci nekk secteur ba nga nekk nga góor góorlu ba nga xam ne ni Sénégal li nga xam ne ni ay noonam te nekk ci biir réew mi loolu je pèse bien mes ndax noonu Sénégal weesuut lépp li nga xam ne day jëmale réew mi kanam nga teg ci sa bët war ko wax askan nga ne doo leen ko wax wala nga ci xëpp kaani noonu yooyu nag ñun nañ fexe ba saa suñu liñ bëgg Sénégal mel mu bañ ko mel kon nañ mobiliser wu ñun ñëpp rawatina ñun ñu dëkk Touba Mbacké mobiliser wu ci ginnaaw président ci ginnaaw Serigne Mountakha Bassirou sax laay wax nañ ko dimbale te jàppale ko ci ni mu bëggee ci ci dëkk bi ci ak njub ni mu ci dëkk bi ci ak mm, set ni mu ko bëggee ci wàllu développement ak ni mu ko bëggee ci wàllu yar ak teggin ñu ñu mën koo ndax kenn ku ci nekkat nee na fa lay mujjee murit bu ci nekk dafa am yéene dëkk ak Serigne Touba. nee te loolu li koy kii mooy da ngay da wut sa pujum néeg mu doon sa seere yow mel soo soo fi amee sa bujum néeg soo soo fi mënee ñëw nga ñëw soo mënul nga wut ñu la fi nekkat tey wut lu fi ñëw mu doon sa seere yow na nga xam dëkkaloon nga Serigne Touba nit nag wax dëgg yàlla soo bàyyi si lépp ñëw wut si ko lam bëgg moom ngay def lam tere nga bàyyi ko. nañ gën a war a yare ki teggin bàyyi mars yi lu ñu naqari ñu jóg na dañuy mars te bañ a bàyyi tamit ñi nga xam ne dañoo nekk suñu ginnaaw du ñu xam ak ku manti doon nag ndax Touba ñaara fi daje. ki nga xam ne moom Serigne Touba ko tax a jóg mu ñëw ak ki nga xam ne ni moom boppam a ko fi tax a jóg ak nu mën a sant ci àdduna nag boo ko fi boppam taxee jóg rek mooy dañuy xam ba xale yi ci suuf laqatu ci dem di def ñu kontruñ kenn sëñ Mountakha la ñuy contre nañ xam li ñu fi indi bàyyi ñu fi Serigne Touba dane lépp lu ma am dane li ma yor may wut saraxe wut ablewut day jaay ndax damaa toog juróom-ñaari at yi gisuma lenn gisuma ndey gisuma bàyyi gisuma at yi gisuma lenn lu ma waaye jox kon nag ku bëgg ci man li nga xam ne ni moom laa yore da ngay teg sa bopp li li nga man ak li nga mënut da ngay def jaadu nafs xudumtu bi ne jaadi asa ila jaadi akbar jóge na ci jaat bu mag ba ci jaat bu ndaw ba mooy mooy bi nga jël eh, gobar di di xeex jaadu bakkan bi lañ toll foofu lañ sëñ mu ndaxaawoo ku manti doon nee na sëñ sëñ Abdoulaye teg ci awma rak awma doom ñëpp ay taalibe lañu awma jarbaat loolu mooy li may digal taalibe yi laa koy digal waaye sëriñ si laa koy digal benn boobu rek moo fi am kon nit ñëpp xam ne li war taalibe rek nag moo war sëriñ ci dëkk bi ci liñ fi tere mooy njub jombul kenn kon ñu ngi ci woo suñu bopp di ci woo suñu njaboot di ci woo képp ku nekk Touba di leen siyaare di leen ñaanal atum jàmm di ñaanal sëñ Mountakha Bassirou mu yàgg fi lool te ànd ak weer ba naar yim naa la Serigne Touba yëpp ñu fekkee ko ànd koog moom a njabootu Serigne Touba gépp ci barke Xaadim Rasul jërë ngeen jëf. Eh, kaddu gi rafet na am na solo ñu ngi lay sant baax di la gërëm xam naa sëñ Bass eh, yaakaar naa dégg nga tey débat bi kaddu gi sëñ Xaadim li mu fi waxtaan lépp eh, ginnaaw yaa ko ubbiloon rek xam naa dañ lay bàyyi rek ko defee itam nga remercier rek résumé waat baax a baax daal di tàggatoo su ko defee ñu yëkkati jotaay bi. commissaire ñu ngi lay féliciter bu baax ci exposé bi je pense que auditeur auditrices yu département de Mbacké voire même la région de Diourbel bu ñu dégloo lii danañ xam ni débat bu am solo bu riche aussi mais nag euh, alif laam miim ba minal jinnati wannaasi dañuy faral di wax ni suñ borom waxu ci ku amul xel borom xel yi lay waxal kon donc jàpp naa ni boroom xel yi ak ñi nga xam ne dañ doon nelaw boroom xel yi ni leen pëkk-pëkk war nañoo mën a yeewu te xam ni lu ñu bokk des koy waxtaane ba teg ko ci axe kenn ku nekk mën ci jariñu loolu la léeg-léeg sax damay dégg animateurs yi di ko wax naan benn nen kenn du ko omelette dañ koy mayonnaise ku nekk càpp te dem Sénégal foofu la toll lu ñu bokk la di ko waxtaane comme nag lu ñu bokk la di ko waxtaane mu nekk ci loxo yi ay njiit ndax bu dee ci yoonu murit sëriñ Muntaxa moo fi njiit nga dem Tiwaawan am na njiit Njaasaan am na njiit Laayeen am na njiit église katolik bi am na njiit tey jiit ñun ñëpp ñu nekk ci kilifteefu président Macky Sall mais Macky Sall it ànd ak ay nattangoom ndax tey jii bilan bi yi nga xam ne def na ko fi de 2012 ba bu ko fi yàlla jëlee jàpp naa ne moom ak ay nit ñoo koy ànd ñoo ñu mu ko àndal nag kon lépp loo xam ne def na ko ñoom seeni responsabilité mu ngi ci biir kon jàpp nañu discours bi mu def te tey ñu doon ko jàngatandoo responsabilité Moustapha Niasse a ngi ci le président de l'Assemblée nationale responsabilité madame Aminata Mbengue Ndiaye mu ngi ci au conseil des collectivités territoriales responsabilité Idrissa Seck a ngi ci le président du conseil économique social et environnemental mu ngi ci kon donc lool bu ñu defee compilation bi mu génn discours bu am solo bi jàpp naa ni ni mu ko waxee moom commissaire heure bi daana fekk télé yi rajo yi débat di bëgg a rey nit ñi laaluñu secteur bi laaluñu secteur ba mais tey ñoom ñëpp a afoon kenn waxul parce dafa sànni karawaas gi ci seen kaw suñu waxee rek sénégal yi comprendre leen moo tax ñu noppi alors di profiter aussi di félicité le personnel médical le personnel médical tey jii la ñu daan wax chapeur pompier sauver ou périr ñoom ca loolu la ñu nekk dañoo nekk ci sauver ou périr parce que bu ñu xoolee cas yi ni ñuy évoluer ak ñoom fi ñu toll ba mu jaral président mu ni dañuy recruité cinq cent médecins mille paramédicaux dama jàpp ni kon moom il est très conscient ci li nga xam ni moo fi mooy maanaam secteur de la santé di ko félicité aussi ci hôpital bi nga xam ni muy niveau trois bi mu joxaat waa Touba te nommé waat doomi Touba docteur Moustapha Souran mu nekk le directeur loolu aussi vision la parce que bu fi indi woon keneen kooka bala muy adapté wu mën na yàgg te Touba dafa nekk ci allure boo xam ne ci développement dafa sax dépassé sëriñ bi sëriñ Touba nag dara dépassé wu ko mais nit ñu ni defee benn ruée vers Touba tax na mu xam ni lii Touba yayoo na ko mu def ko wëlbatikuwaat nome koo xam ni ku ne xamoon na digganteem it ak dongo yi ndax ku xam Moustapha Souran xam ko ak sëriñ Saliou mais ku xam Moustapha Souran xam ko également si ak xel koom kon moom doon na ko maîtriser dëkk bi ñu koy félicité moom it di ko encourager ci ni mu nekkoon ba li dab ko bu mu wàcc yoon bi na continuer ci loolu kon donc le personnel de la santé ñu ngi leen di féliciter mais di profiter ci occasion aussi di wax ni déglu nañu jamono yi ci ginnaaw ay émission parce que nag pandémie bi ni muy évoluer li mu ci am ci cas waxuñu ko askan wi. des fois da ngay dégg ñu naan am nañu vingt deux cas grave fekk na boo gëstoo diis yëpp ñu ngi tuubaa gi mais kenn du ko wax mais dañu war di leeral nit ñi localité yi cas grave yi am pour ñu xam di leeral nit ñi localités yi décès yi di amee pour ñu di ko xam pour ñu di moytu loolu ñu ngi demander médecin chef bi nga xam mooy la médecin chef régional madame xawma nan pour que moom muy clarifier loolu nit ñi di am la bon information pour mën a jël seeni matuwaay ndax baa affaire bi ni mu fiy doxee dafa jéggi dayo léegi ñun nag mënuñu xam mais ñi nga xam ne ñoom tey ku ci feebar ñoom ngay dem ni ko maa ngi nii feebar naa ñoom ñoo ñuy wax ñu war a gëm su ñu waxee rek ñu jàpp comme ñoo ni nangam mu ngi am fii nañu jël suñuy matuwaay engagé waat te defaruwaat jaajuwaat ndax deux cent vingt quatre cas cent trente six cas contact communautaire kooku dafa bari na de. bari na torop kon loolu nañ ci góor góorlu ci côté insalubrité bi aussi dañuy jaajëfal nag suñu jigéen ñi ndax alxames ju jot ci Touba dong la am jigéen ñëpp daje nekk ci seen quartier yi di bale ak a di set setal loolu Touba rek la am mais ñu lançons un appel à la commune de Touba pour que camion yenn fële ca boori kàdd bàlloo ji xamuñu lu ko fa bàyyi mais nañ ko génne mu nekk ay auto ramassage d'ordure ñu jébbal ko quartier yi pour que jigéen ñi buñ baleetee ba pare au moins mën a am auto yu ñëw di ramasser mbalit mi mais buñ ko balee ba pare bàyyiwaat ko fa mu tasaraat loolu mooy ñëwaat encore kon loolu soit commune bi na ci communiquer ñu xam lan mooy problème bi wa ilaa bu fekkee mën nañ ko génn ñu mettre que ci deux mille vingt et bi à la disposition des populations de Touba pour ñu mën ko jariñoo moo gën mu nekk fa ba yàqu loolu gënul bi ci toppit mooy wàllu njàng mi président daf ci def lu am solo ndax waxtu wi ñu nekk nii daana fekk xale yi nekk ci ay vacances ñu naan nowel mais mu comprendre li fi xewoon ci pandémie bi yóbbu vacances yi ba fin janvier deux mille vingt et pour ñu door a mën a noppal pour def seen premier trimestre loolu aussi ko am vision la parce que am réew njàng ko yor am réew xam-xam a koy yor. loolu mu conscient ci ba yóbbu ko deux mille vingt et loolu aussi gis-gis la ci li ci des nag muy ci wàllu hausse des denre de première nécessité commissaire c'est un expert parce que boo demee ba naan commissaire aux enquêtes économiques je pense que ni moom moo ñu gën a jige sax prix yi bien vrai que ñun nekkoon nañ ci domaine commerce mais tey jii ñoom ñoo ci des ñun ñu ngi ci beneen domaine mais li mu ci wax dafa leer foo dem di nga fa gis ay verre mënul ñàkk transport bi rek da ngay jékki gis ku naan bu client bare mun la garage Dakar ak rond point bi cent franc laay fayeeku mais amal fulla am na ci loo xam ne population ñoo war amal seen bopp fulla soo ma bëggee jaay wala nga bëgg maa def loolu loo xamante ni méngoowul ak li ñu yoon li yoon wax mais man ma dem jooytu ko fa ma ko war a jooytoo mais du ma ko def ba pare wëlbati ku naan réew mi naqari réew mi naqariwut yow mi jënd prix bu cher yaa am xaalis yow mi paas loo xam ne fukki dërëm la nga joxe ca cent franc wala deux cent yaa bari xaalis. mais boo ca amee fulla ju mat sëkk fu ngeen dem yaay am dëgg mais tant que bàyyiwuñu dama ko rusa boole dama rusa def du dem fenn beneen bi mooy côté insécurité bi fii ci Touba je pense que tout récemment gis nañ vidéo yu doon circuler ci marché gaar bi ci ay gone yu tuuti yoo xam ne dañu war a toll ci jàngi ñu war a toll ci kii alors que ñu bàyyi leen encore ci ay secteur c'est grave wax naa ko léegi ñaata métier ñoo am Sénégal mais boo jëlee sa doom jox ko sareet ne ko acca demal xale bu amagul huit ans mais bu màggee ñàkk jom yow mi ko ko jox yaa ko ko defloo parce que xale bu tolloo ci jàng dafa war a jàngi wut xam-xam bu ëllëgee mu mën a noppal boppam noppal ay waajuram ñu jël marché garbe bi Serigne Saliou Mbacké gën joxe woon ko pour bëgg nit ñi dafa daan seen doole mais saa bu ñu yëkkatee lu mel noonu nag il faut que it sëriñ bi jël ci ay responsabilités am saa bu ñu yëkkatee ni nañu séddale marché wala nañu séddale ay pàkk ñi néew doole ñoo tax mais da ngay am sa ngandam magasin fu la neex ci dëkk bi ñu ni ñu ngay séddale marché sàngam nga dem accaparé fa presque plus de dix parcelles wala vingt boo paree yëkkati ko ba mu raser nga tëj ko jublu ci lan fay ñu nekk kenn du fa dem paralyser système bi war a dox foofu mais tey fee war bu fekkente ni ñoom mënuñu cee jël ay matuwaay mais nañ ko raser comme marché ngiraane nañ raser lépp. ndax espace yooyu quand sapeur pompier xaj na fa quand gémi xaj na fa service d'hygiène xaj na fa lu ne xaj na fa moo gën ñu bàyyi ko nii mu nekk ay niche yoo xam ni wuyu yi dañ fay daje wuyu yi dañ fay daje te loolu jàpp naan danañ ci waxaat ci yeneen i débat incha allahu rabbi kon jërë ngeen jëf. Mm, bés gay xam naa foofu nga dugg moom point la boo xam ne spécial moom danañ ci ànd ak yow débat ci waxtaan ndax itam lu mat a waxtaane la euh, muy lu am solo muy gaar bi ndax mën na mën nañ faa def leneen loo xam ne dana jural askan ak population Touba lu am njëriñ mais feeñ ko bàyyi ne doy doy na waar kon ñu ngi lay sant bu baax a baax di leen gërëm sëñ Khadim monsieur le commissaire ngi lay sant baax ci sa disponibilité bi nga xam ne ñëw nga ko waaye itam ci ndimbalu suñu waa ji di sëriñ euh, Bass Gueye nga xam ne yàgg nañu ànd ak moom euh, débat yu mel ni yu am solo yi ndax dañuy sawar di ànd ak yéen saa su nekk ndax kàddu yi nga xam ne moo fi jib lépp day nekk lu tege ci dëgg tege ci xam-xam li nga xam ne wax nga ko lu ne fàng kenn du ko jeex kon ñu lay sant baax di la gërëm di leen jaajëf seen teewaay ak seen kàddu yu rafet yooyu Moustapha Touré ñaan loon ci wàllu xarala gi euh, ci kàddu gi Ibrahima ñi ngi di jaajëfal tam baax a baax monsieur le directeur Omar ñi ngi mi nga xam ne moom mooy chef de station bu Touba Mbacké FM RTS euh, di leen sant di leen gërëm incha allah di leen jox yeneen daje ci yeneen jotaay yu mel nii ci fii ci fréquence bu 99 point 2 salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu yàlla na jàmm ci réewum Sénégal